gaare so auto fum la neex nek na lu ñuy faral di nemeku ci diwanu ndakaaru fi ci commune Hann bel lu ni mel dal dina fi bari nek lu sonal askan wi ndax galankor yum leen di jural ci walum dem bi ak dikk bi rawatina ci walum kaaraange. vraiment auto yi ñu sonal fi quoi nu ñuy gaaree fii nii franchement parler papas bi mom c'est bon quoi mais nit ñi nañu respecter nu ñuy gaaree seen auto yi quoi franchement lool rek moy suñu problème quoi buñu sañon dal auto yi buñu ñew buñu bu nous jéem nous xam ni ñuy dal nous ni organiser wu aussi quoi à chaque fois quoi mënuñ l'a expliquer quoi nit moom mooy xam lu mu war def waaw boo indee sa oto nga xam ni nga koy gaare nga organiser même pour amener sax soxla bu ndaw nii quoi nga dugg ci marché bi di jënd nga xam ni nga koy gaaree quoi pour maanaam bu keneen ñëwee tamit mu continuons ainsi de suite ainsi de suite noonu lay demee quoi souvent quoi. garage bu hôtel di gaare fii de créer étroitesse créer insécurité créer même pagaille même fan passé rek amna ay auto euh, des xamné ne kon bi lañ dëkk yu paan yu paan des paan bu paré ñu ñëw parak ko fi ñun commencé na si conseil quartier ba waxtaan ak ñom dialogante ñoom ba ñuy commencé dégager auto yi dal euh, municipalité bi euh, administration préfecture ah di ñu dimbale ndax gis am doole pour am doole doole pour mën a dégager oto yi fii jàmm ak salaam rek. ginnaaw ba ñenn si askan wi di sàkku si mairie bi ab wàllu si bile jafe-jafe Issa Gueye di secrétaire municipal bu mairie de Hann di si andi ay leeral boole si di joxoñ baram lii di garage mécanicien yi waaye ñoom ñee ànduñu si. alors oto yi di gaare ci tali bi di gaare n'importe où daanoo ko andi lu ci ëpp garage mécanicien particulièrement te loolu dafa jaaduwul xam nga boo ne yow man doomu dëkk bi laa mais da ngay defar dëkk bi mais gaare fu ne démb rek ben accident na fii boo xam ne li ko waral mooy yooyu les gens se garent n'importe où n'importe comment koo ci sabu mu ne da nga maa singali on a eu un problème comme ça n'est-ce pas hier ñun singaliwuñu kenn mais dafa am loo xam dafa jaaduwul on a trente sabots mais li ñuy li li li ñu war nit ñi war comprendre Hann Bel-Air mënul nuroog jëppal Derklé Fille, tu as le port, tu as les industries. C'est entre 1200 et 1800 camions chaque jour yu jóge ci port ak industrie yooyu di jaar ci route bi loolu est-ce que mën na nuroog waa jëppal ak waa feneen mënta ne c'est pas possible par contre il faut ñu organiser loolu te loolu il faut que état jàppale ñu ci. oto yaa ngi dugg ci biir dëkk bi ay camion ak ay car njaga njaay ak ay taxi yëpp dañuy jaxasoo ak population bi léegi nag pour mettre sa euh, sa oto en sécurité da nga naan xaaral ma yóbbu ko ci booru atelier mécanicien yi gaare ko fa. mécaniciens yi sax dañuy am problème pour liggéey mais ñoom waa population bi ñoom moom oto yi mécaniciens yi moomuñu oto yi ñun dañuy ñaan yàlla oto bu ñu dépanne mu dem ñu am ci luñ ciy am yóbbu suñu kër mais pas autant di fi gaaree oto mécaniciens yi bu ñu moomoon oto yi yëpp riche nañ moomuñu leen vraiment